jërë ngeen jëf mbokku intro ak Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbéttu contentement baax a baax mais ñu ngi amati mbéttu baax fi nga xamante ne mooy Sicap Mbao mais ñu fekk fi ko xamante ne tey naa la doomu Saloum di nit ku may yàlla suñu borom may ci li nga xamante mooy ci faj aajo koo xamante ne tey képp koo xamante ne jëflante nga ak moom tey ci lépp loo xamante sa aajo yaram la wala aajo yoo soxla jafe-jafe doomu aadama rek lu doomu aadama di méngoo ci ñaan ku ñëw boo ci nga xamante mooy Serigne Cheikh faj aajo mu ngi fii ci Kambaaw mais doomu Saalum la nag léeg-léeg lu baree baree bari mais képp koo soxla rek tey nga ñëw seet ci ci li nga ne mooy ci aajo doomu aadama yi ak ci li nga xamante ne mu koy fajal nit ñi dañ ko bàyyi mu nuyoog mbokk internet Actubuzz TV ñu xuus ak moom tey laaj ko tey dëgg-dëgg mooy ci ñaan gi muy def ak seet bi dimbali may ko ba lépp lu wax nit ki rek aajo lay doon suñu Cheikh ñu ngi lay nuyu baax Cheikh bi di la siyaare auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wala xawla wala xawta illa billah aliyul azim alhamdulilahi allazi xalaqa alsamawati wal ard wa jaala zulumati wa noor suma allazina kafaru huwa allazi xalaqakum min tiinin suma hada ajala wa musamman indahu suma antum tanturuun wa huwa fi samawati wa fi l sirrakum wa jaalakum ma taksibun ñu ngi lay fay nuyoo yéen waa Actubuzz waaye tamit di nuyu mbooleem koo xamante ni yaa ngi safoo wala Serigne Cheikh faj fii si réew mi ak bitim réew. jërëjëf sëñ Cheikh waxtaan googu am na solo nee mooy sëñ Cheikh faj aajo yow nit ko xamante ne tey nee na la nañ teelu déglu li nga xamante mooy suñu émission incha allah bi képp ko xamante ne tey am nga jaaxle jaram ak njàqare mun naa ne jeex na parce que boo déglu émission bi rek dañ ci tudd mboolee mi doomu adama ak jafe-jafe nit ñi nga xamante ñu ngi am ci àdduna bi mais premier ponk bi ma ñëw ak yow mooy ci mbirum seet parce que ñu bare bare ñu ngi lay bàkkee li nga lool lool lool ñu bëgg a laaj tey euh, sëñ Cheikh secret bi seetu lan la da day seet ci ndox wala ramli ngay seet wala ci kurus ngay seet wala ci arxoon ngay seet. mboolem seet yi sëriñ bi damay wax ne budul dul rek daanaka baax na waaye nag am na si façon seet yoo xamante ne nii damay wax ne ñii song ñi soog a jàng seet wala ñi soog a jóg ñoom ñoo koy seetee lu mel ni ay ramli xam ne dañ koy tomb tomb tomb. lu mel ni ay dégg nga yeneen yi nga xamante ni ay kurus ak ay ndox yooyu yëpp façon euh, xeetu seet la boo xamante ne nii mën naa wax ni ñi tàmbali ñoo koy ñoo koy ñoo koy seetee waaye ñun seetu roxaani yu bi nga xam ne maanaam dañu jël roxaanu nit ki jàkkaarloog moom di ko laaj si nit ki mu ñuy wax di ko laaj ci nit ki mu ñuy wax bañ jeexal ko ataa sax bu fekkee dafa am ay góom si biir biiram wala ay lëgët si biiram wala ay màndarga si biiram sax moom seetu ruuxaani yoo googu daf koy génnee waaye loolu yëpp amul solo li am solo rek mooy doomi aadama bi bu ñëwee ñu laaj ko turam turu yaayam ak atam incha allahu tabaaraka wa taala li ko amal njëriñ rek lañ koy gisal ak li nga xamante ne nii dëgg-dëgg moo war a doxal mbiram yi waaye tamit indi si saafara bépp saafara boo xamante ne affaire bi war nañu ko rek ñu jagleel ko ko waaye amul kenn koo xam ne da ngay sonnee feneen si seet te ñëw fii incha allahu tabaraka wa taala te duñ la gis si seet seet moom damay wax ne dëgg-dëgg sax du mbir yi mën a gis dëgg-dëgg du mbir yi waaye mën a faj ajo moom mooy mbir yi mhm. comme ci li wax léegi-léegi mooy mën a faj aajo mooy li nga mooy ci mbir mi mais seet ak li nga xamante mooy mooy seen différence seet ak istixaara istixaara man su ma doon tànn moom lay tànnloo nit ñi ndax yoneen sallallahu alayhi dafa wax ne dee leen def istixaara ci seeni mbir waaye seet moom daanaka comme li ma la wax léegi rek ñun jàng nañ ci bëree bëri waaye duñ koy jëfandikoo ndax am na si façon seet yoo xam ne dafa xaraam ci nit kii di ko jëfandikoo bëri na nit koo xamante ni sax maanaam lañ koy gisal mu foog ne loolu moom mooy mbiram yi loolu noonu moom moo indi ak loraange si jëmmam ba sarax yi nga xam ne sax dañ ko koy tegtal di ko digal sax yooyu du doon ay saraxam façon doomi aadama yi ñi génnee ko ci tabian bi nga xam ne dafay nekk ñeenti tabian moo tax léeg-léeg damay gis yenn ci ay sëriñ ñi wax naan tabian yi nangam ki nangam ki nangam li ñuy wax yëpp damay xam ne dëgg-dëgg ñi ñu koy waxal ñoo xamul ala kulli moo tax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jëflante ak sëriñ si wallaahi dal leen ngeen teey ngeen seetu fan la xam-xam nekk ak ràññee fan la xam-xam nekk ngeen jëflanteek ñooñu su ko defee rek seen aju yi dafay euh, euh, faju gis nga yàlla si boppam moom moo amee sox euh, ajo bi di ko joxe muy faju mais nag bu fekkee ne nit ki dafay sonn guddi ak bëccëg suba ak ngoon te maanaam fi mu nekkoon daaw foofu la gën a nekk fa ko gën a arriéré kon noo donc maanaam war ngaa seet war ngaa xool ki lay jox mbir yi lan la dégg yeneen yi si aju mu jëm nag si li nga xamante nii mooy wàllu seet gu wér maanaam istixaara gu wér kooku daf lay génneel li nga xamante ne nii moom mooy sadaxa ak ay tegtal yoo xam ne yu leer la yooyu nag soo si àndee ak sëriñ bu man li muy def wala sëriñ bu xam li muy def incha allahu tabaraka wa taala da ngay gis ne mankat kat maa ngi am yëkkatiku maa ngi am yokkute si sumay mbir waaye diggante seet ak istixaara foofu la différence bi nekkee maanaam istixaara daf lay wan li gën si yow li baax si yow waaye tamit lii la taxa li la taxa taxaw parce que lu daan dox ba mu yàgg mu taxaw am na lu tax mu taxaw lu daan lu daan neex ba mu yàgg mu naqari am na lu tax mu neex da nga koy puus rek su ko defee mu mën a mën a mën a neex waaye am na si bis yoo xamante ne nii dëgg-dëgg sëriñ bi nit ki waru see génnee sarax dinaa si ñëw si biir émission bi am na si bis yoo xam ne nit ki war na see tàmbali saafara waaye am na si bis xam ne dafa war a lu muy lu muy suñ ko waxee na ko sangat bi sax juróom fan la kooku war naa góorgóorlu ba bis boobu bu mu sangoo mu sangoo juróom-ñaari yoon si bis bi maanaam mu sangu juróom yoon si bis bi su fekkee ne bis bi bisu sarax la na góorgóorlu ba bis boobu lu mu mën si sarax na ko def si suba gi yor-yor gi bëccëg gi dégg nga ngoon gi nay saraxe rek parce que bis boobu moom mooy bisu sarax léegi nag rawxaaniye bi moom mooy ñëw indi li nga xam ne dëgg-dëgg mooy mbir yi di ko jox doomi aadama bi doomi aadama bi ay mbiram di dem du taxaw am na si ay ay nit ñoo xam ne yow yaa leen éenee ne maanaam ñoom na seen mbir yi taxaw waaye seen mbir yi du mos a taxaw ndax dañoo xam li ñuy def lan la te duñ si sonn lii moo nekk loo xamante ne nii dëgg-dëgg ku ko ak sëriñ Cheikh faj aajo moom yàlla dina la dimbali te nag ma yëgal la benn affaire man naa wax ne man Serigne Cheikh faj aajo bokk naa ci sëriñ si nga xam ne sonaluñ kenn si dara si seet dégg nga dañ lay laaj lu ndaw nga yónnee ko bokk ñi nga xam ne dañuy exagere yónnee ñu nangami junni mbir yi du foofu mbir yi dimbalante la ak ñi nga xam ne ñoom la la yàlla booleel am nit sëriñ bi moo gën am am amu àdduna ndax am amu àdduna dafay jeex maa ngi dégg son tooma Cheikh Ibrahima Niass mi wax ne moom dafa dafay faral di ñaan mu ne yàlla nañu yàlla may teraanga mu ne déedéet ba tey teraanga dafay jeex mu ne yàlla nañu teraanga déet teraanga dafay jeex kon te doomi aadama su ko yàlla mayee teraanga bu teraanga jeexee mu mu bëgg ñaanat yàlla yàlla nañu yàlla may dégg nga yeneen façon yeneen façon yeneen façon ba mu yàgg mu ne loolu sax dafay jeex lan moo dul jeex mooy am yàlla bu la yàlla mayee yàlla bu yàlla mayee yàlla yow jeexalatoo dara mu ne waaye yii si des yëpp am-am xaalis wërsëg bayre nangam nangam yooyu yëpp dafay jeex. kon nag nit ki war na fexe ba suy jëflante ak nit ki mu jëflanteek moom si jëflante bu rafet waaye tamit war na fexe ba buy jëflante ak nit ki nit ki xam ko dëgg-dëgg parce que xam ma xam ma gëmma gëmma amul njëriñ waaye defal li tax ñu war laa xam defal li tax ñu war laa gëm ñin nag seet gi dañ la am lu ñu lay laaj lu ndaw mënta ñàkk nga yónnee ko ñu seetal la si istixaara gu wér waaye tamit bu ñu demee ba si ñaan gi tamit dimbale la rek lañuy def ndax bu ñu la dimbalee sa mbir yokk suñ la dimbalee sa mbir yokku su ëllëgee yow da nga dimbale ñeneen da nga dimbale ñeneen da nga dimbale ñeneen. loolu am na solo loolu sànq yaa ngi ci ponk bu am solo mooy ci mbirum sarax yi ñëw yow tuuti rek ci ponk bu sarax léeg-léeg nit dina génne ay saraxam di ko indi gàllankoor da koy tëj ci wërsëgam. waaw si saddaxa yi doomu aadama bi daf koy def. mbiram yi taxaw wala mbiram yi gën a dellu taw boobaa avancement amatul avancement fan lay amee mooy def nga dara tey mais balaa ngoon war ngaa gis résultat yi euh, loolu nag li ko waral mooy nit ñi dañoo ràññeewul ban façon doomi aadama moo war a génnee sarax bii ak ban façon doomi aadama moo war a génnee sarax baa léegi nag su fekkee ne loolu yëpp euh, nit ki nga xam ne dafay ote woon ne moom sëriñ la te xamul loolu euh, ki la gëm te ñëw si yow loo ko digal rek loolu lay def moo tax il faut te il faut faire euh, très attention si loolu sarax yi dafay utee si jëmm yi sarax yi dafay utee si melo yi doomi aadama dafay am jëmm sàngam tur sàngam euh, turu yaayam nangam dégg nga ak ay atam nangam kooku dañuy xool si ban tabian la bokk ak ban biddiw la bokk parce que am na doomi aadama yoo xamante ne nii seeni biddiw dafay wàññeeku doomi aadama boobu nga xam ne biddiwam dafa wàññeeku nag dafa am sangat boo ko war a jox pour biddiw bi mën a yëkkatiku doomi aadama boobu dafa am sarax boo xam ne moo yëkkati biddiw bi du sarax bi nga maanaam du da koo defal istixaara génneel ko sarax bi baax si jëmmam taxul nga xam ban façon sarax moo baax si biddiw bi ndax benn bu si nekk rek ay melo la yoo xam ne moom moo ko yëkkati euh, tey comme man Serigne Cheikh ma seetal benn jigéen wala benn góor si jëmmam ma génne loo ko sarax sàngam loolu moo baax si moom waaye nag si biddiwam dafa am lu yëkkati sarax bi waaye si biddiwam tamit dafa am waxtu boo xamante ne nii si lay sangu bu tayalee nag man xaw ma si dara am na waxtu boo xam ne dafay dagg nelawam yi wala mu dagg ba e-, itteem yi si bëccëg gi wala si nangam wala si nangam wala si nangam mu mën a sangoo loola su ko sangoo rek da ngay gis ne biddiw bi dafay yëkkati ko parce que benn doomi aadama ñàkkul wërsëg yàlla ñëpp la jox li nga xamante ne mooy wërsëg waaye nag li am solo ba am solo rek mooy nañu dimbale ñi jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo bëgg ñu dimbali leen ñun nag ubbil nañ suñu bunt ñëpp képp koo xam ne yàlla dogal na nga bëgg ñu dimbali la rek soo jox ko ak ñun dinañ la wax naka ngay def naka ngay def naka ngay def bañ mën laa dimbali ba nga jégaat sa bopp ba nga yëgaat ne yow mi kat dëgg-dëgg maanaam am nga wërsëg sa wërsëg bi dikkal na la ñëwal na la incha loolu am na solo loolu loolu léegi dañoo fekk am benn lekket boo xam dafa am neefere maam gëj bi lekket bii lay dox ak ci li nga xam ne mooy neefere mbaam la yow ko la wax ne la neefere mbaam la wala da ngaa xam ne neefere mbaam la. neefere mbaam. Hmm, waaw mbaam la waaye nag mbaam bu góor la mbaam ngonk mbaam ngonk ci dañ koy liggéey si ñi nga xamante ne nii. nit guddi yi dañ leen a jàpp waaye dañ koy liggéey tamit si ñi nga xamante ne nii ngelawal shayatin daf leen a dugg mm-hmm. waaye tamit dañ koy liggéey tamit lu jëm si wàllu shayatin maanaam li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy àndandoo mm-hmm. ñetti façon yi yëpp dañ koy liggéey xaaral ndax xet gaa ngi mm-hmm. nga moom su fekkee dafa jàpp nit ki moom ngelawal shayatin amul benn rajo booy dem ñu gis ne lii moo la jot fu ne da nga fa sonn guddi ak bëccëg rajo bu nekk danañ la fa dugal waaye duñ gis dara moom nag daf lay indil moom ngelawal siyaatin bi bu la jàppee daf lay indil ay métit ci sa yaram bi moo xam muy dox ci suuf moo xam muy dox ci kaw waaye tamit su fekkee ne dafa am ñetti waxtu yoo xam ne da ciy dugg nit ki ñetti waxtu yoo xam ne da ciy dugg nit ki loolu dañ koy côté ñetti waxtu yooyu bu la duggee manifestation bi day commencé ci heure dix huit heures dix neuf jàpp vingt heures vingt et vingt deux heures vingt trois heures ba guddi gi xaaj ci la lay dal maanaam li muy def dëgg dëgg dëgg ci la lay dal moom na su la duggee da ngay seeram bi dafay fasu di diis di tàng fépp foo mën a dem duñ gis dara même boo defoon rajo bi gën a seer ci rajo yi duñ gis dara te mënuñ koo faj. parce que du liggéey hôpital waaye ala kulli xaalin yàlla dogal na ñun am nañ secret bi wër ñi ñu téléphoné yëpp si at mi di ñu wax ne man kat sëriñ bi damaa sonn damaa sonn dama sonn damaa sonn ba ma leen ko joxee lañ tàggoo ak ngelawal shayatin kooku sëriñ Cheikh faj aajo moom moo koy liggéey waaye tamit ñi nga xam ne maanaam mbir seytaan dañ leen dugg ak li nga xam ne nitu guddi dañ leen a dugg loolu am na solo ci li nga mooy ci mbirum seytaane sonal gi mu sonal doomu aadama yi mais moom ak rab am na différence dafa wala. bu mag bokkul rab moom la arab di wax xarin rab nag dafay mbir moo xam ne dafay jublu nit ki wala mu ñàkk jublu nit ki rab bi nga xam ne dafay jublu nit ki kooku la ñuy wax àndandoo bu cosaan bi bu cosaan kooku mooy jublu nit ki kooku naka lay jubloo nit ki mooy su fekkee ne doomi aadama bi nga xam ne nii amee na ko sa cosaanam sa way juróom bu jigéen way juróom bu jigéen boobu sa way juróom bu jigéen doomi aadama boobu moom day fexe nu rabam boobu nu àndandoom boobu nu mu koy neexalee maanaam di def li bëgg si ay sarax kooku mbiram yi dafay kawe waaye su fekkee ne nag dafa dugg nit ki par hasard kooku dañ koy dindi mais bu dee bu cosaan bi la man Serigne Cheikh mi nga xam ne da yàlla may na ma man duma ko laal duma ko dindi waaye nag damay fexe jox la ay tegtal ak ñaan yoo xam ne dafa lay jublu léegi nag su fekkee ne boo xam ne daf laa dab bu la dab bi kooku su la jubluwul rek am nga problème moo tax il faut ñu dindi ko soo ko dindee nag lépp lu jafe woon si yow dafay daal di commencé di yomb waaye lépp loo xam ne da daan sori da daan sori si yow tam war a nekk njëriñ kooku dangay gis ne dafay commencé di jege moo tax rab bi bokkut ak ngelawal shayatin kii ngelaw la ngelaw loo xam ne daf laa dugg ngelaw li nag bu la xasee ba dugg lu nekk ci da ngay xam euh, ngelaw loolu la ñuy wax ci lembeer ca lembeer xeetu ngelaw la boo xam ne ñu bari dañ koy gis waaye duñ ko xam maanaam day daw ba mu yàgg rek mu def benn ronron tourné ah, tourné dem léeg-léeg mu am benn objectif mhm. boo tëjee tamit mu dugg mun a wax wax ba du la jàll loolu nag bu la dalee rek ñin saalum saalum yi automatiquement am na loo xam ne dañ koy def rek mu daal yi dañ waaye daal ñi nga xam ne àndandoo cosaan daf leen sonal ak rabu cosaan daf leen sonal wala rab dafa dugg seen jëmm yi ba teree leen a am jëkkër wala muy yàq seen alal yi wala muy tas seen yaakaar yi guddi ak bëccëg wala tamit muy yàq seen liggéey yi. li njaq li dañ si sangee dañ koy defar ba mu baax yónnee ko nit ki mu jëfandikoo ko yaa ngi ma fekk maa ngi nafar di jàng sóoratul yaasin moom si loolu lañ koy liggéey est-ce que xam nga sëriñ bi man soxla bu ma mën a am si sooratul yaasin laa koy réglé te ko ko weddi amal soxla soxla bi na rëy na gën a rëy na gën a mag wala nga tànn si sa soxla yi soxla bi gën a rëy nga jokkoo ak sëriñ Cheikh duma la may 24 heures duma la may 72 heures duma la may 48 heures amal soxla bi gën a rëy wala nga tànn si sa soxla yi soxla bi gën a rëy nga jox ko ak Serigne Cheikh yaa xam ban heure nga ma oo waaye waxtu woowu duñ ko génn waxtu woowu noonu duñ ko génn ba du duggaat si beneen waxtu te ma ne la demal nga dox yi sa soxla yooyu te soxla bi fajuwul billaahi wallaahi taalaa kii yaasinte nga ko man moom lañuy liggéeyee nag jàq bi muy ba ci ay ku am jafe-jafe ay kayit ak wala ku am jafe-jafe jafe-jafe yoo xamante ni tey mooy ci mbirum alal gu yàqu wala ci lu baree bari loo xamante ni tey wala ci mbirum kaaraange ci mbirum ubbeeku. xam nga jafe-jafe mënta weesu jafe-jafe te nit kenn du ko xeebal jafe-jafeem ndax jafe moom su duggee si nit ki rek nit ki amatul jàmm kon jafe-jafe du tuuti waaye képp koo xam ne. yàlla dogal na nga am soxla nga tànn ci sa soxla yi soxla bi gën a rëy nga jokkoo ak Serigne Cheikh faj aajo si nu mu gën a gaawee du la may 24 heures du ma la may 72 na ñor si yow nga téléphoné ma jot ma si sama numéro WhatsApp bi wala si appel normal bi soo ko defee incha allahu tabaaraka wa taala ñi ñu delloo bunt yi ndax am na si yoo xam ne soo koy def. dëgg-dëgg dangay delloo bunt ndax njaboot gi kenn warula see fekk kenn warulaa gis dinaa la dinaa leen may ñetti tur ci biir émission bi suñ si tollee rek mën nga ma wax ne ma ah, sëriñ bi li nga digge woon maye ko ma may leen ko ngeen def ko ngeen xool su ngeen koy jàng kenn du leen gis waaye waxtu bi nga ko defee nga sentir sa bopp ci bis boobu incha allahu tabaraka wa taala mbir yi du ay caaxaan mbir yi du ay du ay fo. jërëjëf sëñ Cheikh Faj Aajo waxtaan wi am na solo lool ci xam-xam ñu ngi waxtaan boobu ba léegi yaa ngi génne li nga xamante mooy ci ay secret xam-xam yi am solo yoo xamante ne tey néew na nga dem fenn dégg ko fa beneen gi wi ma laaj mooy ci mbirum noob ñu bari dañ koo yombal xam nga ba ngay wax sax ñu la ñu ñu ñaan la 24 heures ñu ñaan la 2 ma ma noob bi nga soxla ñu jàppale ko mais damay dégg si ni ñaan noob lu jafe la. waaw Cheikh nopp mënut yomb waaye jafewul nopp mënta yomb waaye jafewul man nag su may nopp ci àlliwa xànjar bii si laa koy noobee moo tax soo ma fekkee soo ma fekkee ma tukki dama lay wax ne la bàyyil ba ma dellu kër ga ndax du loo xam ne daf may fekk ci mbedd mi rek ma def ko du loo xam ne daf may fekk suma oto ma def ko du loo xam ne daf may fekk si àll bi ma def ko dafa am bërëb boo xam ne fa laa koy defee li tax bërëb bi mooy dafa am ay waxtu yoo xam ne dafa la war a fekk nga tëju kenn du la gis comme ni ma waxee sànq moom genre xaloo bu ndaw la nekk nekk ko ak xaloo gu mag nga tëju boyal ànd bi teg si li nga si teg dagg xawaatim bi sol ko si bayti xaal bi dugal tur dangay da dégg qul man yunajjikum min azulamaati albarri walbaxri tadunahum tadarruan wa xufiyat la in anjaytana min hazihi la nakunanna min alchakirin qul illahu yunjikum minha wa min kulli karbin kooku lañuy liggéey si lim bu mag a mag kooku kooku liggéeyal mu jublu si ku jigéen ki topp ko bëgg ko si farata loola lay am si moom kooku liggéeyal tamit mu nekk góor mu jublu si ku góor ka topp ko loola lay am si moom noob nag du loo xam ne maanaam dangay jël léppi nit ki noob boo déggee ñu naan noob mooy nit ki na am cofeel si man waaye nit ki bu fekkee ne da nga koo noob comme de façon ni ñu koy déggee loolu daanaka yow amatoo ak nit amatoo ak nit affaire daanaka am mbaam rek nga amal affaire wala ab xar ndax nit ki tamit boo koy noob war nga koo bàyyee lim moom mooy conscience am te xam ne boo ko santee lu bon sax mu mën a ràññee ne ah suma jëkkër ji kat lu bon la ma sant duma ko def waaye noob nit ki te bàyyeewoo ko ak conscience am kooku yàlla du si d'accord du si d'accord yàlla si lan lay d'accord moo tax ma ne la noob yomb na waaye dafa jafe jafe gim jafe ni ko nit ñi di defee la bëgg jël xelu nit ki bëgg koo jox nit yàlla du d'accord loolu moo tax mu jafe waaye yomb na ci kaw yow mii kat di sëriñ bi ma bëgg laa boole ak benn xale bu jigéen ngeen sëy bu ngeen sëyee ci farata ngeen am ci ay doom tuddee ko yonent bi salaay salaam tuddee nangam tuddee nangam tuddee mag ñu baax ñi mais kooku yàlla da ciy sawar parce que yaa ngi pare pour boole ñaari nit ñaari nit ñooñu yokk xeet bi moo tax noob am na ñu ko mën am na ñu ko mënul mbir moo gis nag noonu la demee ataa docteur yi sax léegi-léegi nga dem fa ñi war a opérer sa bët bi dem opérer bët bu baax ba war a opérer bët bu bon bi dem opérer bët bu baax ba lor la noonu la mbir yi demee noonu la mbir yi tëddee. Mhm. am na solo lool ci li nga xamante ne nii tey ñu ngi koy fas yéene waxtaan mooy sëñ Cheikh faj ajo mais mu ñëw ak yow ci mu samp waaw kay loolu nag dafay mbir mu am solo ndax samp nit ki wala samp nit ki ci palaasam wala samp nit ki daanaka lu nit di def wala lu nit di commencé te njëkkeewoo loola loolu mën na laa yàq la waaye boo xasee ba samp luñ la yëngal yëngal doo buuse samp bi nag dafay tax nit ki am yëkkatiku si li muy def maanaam place bi dafay sax daa iman dafay jóg ñun dañ koy def waaye tamit dañ koy def si kër du place rek dañu war a samp da samp kër fexe ba kër googu yëkkatiku rek lay def liñ fa fekkoon ren si lu baax ak lu taaru bu déwénee dafay gën a yëkkatiku dafay gën a yokk waaye nit ki tamit danañ ko samp si bërëb bi muy liggéeyee ba nga xam ne lu affaire yi dëgër dëgër lu mbir yi changé changé bu ñu doon xëy ne nañ wàññi nañ wàññi fukki nit wala ñaar fukki nit wala personnel bi yow doo si bokk su fekkee ne samp nañ la yow doo si bokk waaye nag su fekkee da ngaa xëy rek nga dugg si bërëb bi nu la neexee soo si génn tamit doo doo doo yëg na sax génn nga si. benn waaye dafay wax ne mu ne su fekkee da ngaa nekk ndaw. ngay toog fu la neex man daal fu ma neex rek laay toog gannaaw bu ma nekkee ndaw mu na boo nekkee mag tamit doo toog fu la neex waaye su fekkee da ngaa nekk ndaw fa nga war a toog nga toog fa soo nekkee mag fa nga war a toog rek fa ngay toog fa neex ngay toog loolu nag li ñu ci mën a déggee mooy nit ki mënul am dara wala mënul taxawal dara wala ay mbiram mënul taxawu wala mënul samp wala teraangaam mënul mënul mënul aju ndax ren mën nga am am am euh, yëkkatiku bu déwénee doo ko am weer wii man nga am yëkkatiku bu déwénee doo ko am wala weer su topp doo ko am loolu yëpp da waral mooy ñàkk kaaraange doomi aadama bi dafa war a fexe kaaraangeem sax si moom sax si jëmmam waaye sax si jabootam am na nit nu muy taxawalee boppam sax si kaaraange automatiquement njabootam dañuy am kaaraange donte ne sanguwuñ donte ne jëfandiku ko ndax loolu dafay dem ba nekk sa deret jaar si soxna si jaar si xale yi mhm. yéen ñëpp da ngeen am kaaraange moo tax ñàkk kaaraange yàlla nañ si yàlla musal ñit ñi nañ fexe nuñ góorgóorloo ci seen kaaraange mhm. waaye tamit nañ fexe di sell sëriñ bi mhm. sell tey sell sell mooy première des sos sell doomi aadama bu sellul rek maanaam mbirim yi dëgg-dëgg man man boo sellul man bu ma la xoolee sax du ma la ñaanal ñaata nit ñoo may yónnee message ñaata nit ñoo may yónnee message su ma ko liiree du ma leen faale xam nga lu tax mais xam ne ñii dumaak ñoom maanaam ñii seetlu ñoo parce que koo xam ne léegi-léegi boo ko joxee gàllaaj léegi-léegi mu jaar ci jigéen ñi wala nga jox ko gàllaaj léegi-léegi mu dugal ko ci poosam mi dem defi nag sudul noonu kooku dëgg-dëgg da ngay sonn ci moom rek waaye daal première selle bi mooy toppatoo leen seen diine toppatoo leen seen diine deuxième selle bi tamit bàyyi leen li ngeen xam ne yàlla moo leen ko tere ku si bëgg jabar na ko uti ku ko amul na nga muñ maa ngi dégg benn waaye sax di wax ne sëriñ bi nee na yéen ku si mënul ku si mënul takk jabar na ngeen oor ah, maa ngi dégg xale yi di ko wax fan yi waaye noonu la demee nit ki dafa war a sell nit ki dafa war a xam mooy kan waaye li may waxaat li may waxaat tamit beneen yoon mooy doomi aadama bi bu sampoo am kaaraange incha allahu tabaaraka wa kooku ay mbiram dafay dem te dafay yëkkati ko comme ni nga xam ne noonu la samsul bilaad li wax samsul bilaad euh, noonu la mel. ma ñëw ak yow ci mbirum ubbeeku tamit parce que ban taxawaay nga ciy def. taxawaay bu kawee taxawaay bu rëy ndax man Serigne Cheikh bari na ñoo xam ne bi may jëflante ak ñoom wala bi may commencé di jëflante ak ñoom wallaahi dañoo sonnoon. moo tax sànq nee naa la xool leen seen soxla yi bi ci gën a rëy ngeen wax ma ko. benn bi suma ñenn si suma xale yi dañ ma maa ne ma sëriñ bi yow man ngaa sonn si ñaan de ma ne waaw ndax man ñaan daf ma war ndax suma ma sonul ñaan li ma waxante ak ñoom duma ko def te li ma waxante ak ñoom su ma ko defut mu doon ay fen moo tax nekkal fu la neex waaye ki may ragal kenn rek la muy yàlla lépp lu ma waxante ak yow moom dinañ ko def la waxante ak man soo ko defut sa affaire la waaye daal ubbeeku doomi aadama bi duñ siy liggéey si ayat bi maa yaftaxillaaha linnaasi min rahmati fala mumsika laha wa man yusuf fala mursil lahu min ba'di wa huwa ba aaya bi jeex kook dañ koy liggéey bind ko si limu 489 muy 489 moo jàpp fataaxu li nga xam ne moom mooy ubbeeku fataaxu kooku suñ ko liggéeyee pare dafa am ay sunguf yoo xam ne moom lañ koy booleel ak xob yoo xam ne moom lañ koy booleel doomu aadama bi du ko sangoo lu dul dafa ubbeeku lu dul dafa yokk lu dul dafa kawee li nga gën a bëgg sa àdduna commencé si première kooku soo ko sangawee daanaka loolu ngay njëkk am te lan moo lay xamal ne yow sa sangat bi baax na mooy soo koy sangoo da ngay gis lu leer nàññ ak lu weex tàll ngay gis ci gént lu leer ak lu weex moo koy gis ci gént dangay mel ni ku téye kurus doon ko liggéey ci yenn tur yàlla yi waaye daal aaye boobu ma la wax léegi dañ koy liggéey 489 am nuñ ko def jox ko doomu aadama bi boole ko sunguf yi ak euh, yenn façon xob yi nga xam ne day law doomu aadama bi jëfandikoo ko kooku su ko jëfandikoo incha allahu tabaaraka wa taala mbiram yi dafay yëkkatiku mbiram yi dafay aju ci lu kawe kawe. Ah, mbir mi kenn xamul lu mu doon ndombalamba la lan la. waaw lii moom dafay dindi gàllankoor si doomi aadama bi dafay dindi ay cat si doomi aadama bi ndax kat mën naa wax na kenn du ma catu man ngaa wax ne nag kenn du ma liggéey ndax aar naa sama bopp loolu man mën naa ko garanti sama bopp ne man Serigne Cheikh faj aajo kenn mënumaa liggéey ba jàpp ma man Serigne Cheikh faj aajo fi ma ko teg nag fu leer la ci télévision laay waxee waaye man Serigne Cheikh faj kenn du ma catu ko wax waaye nag naa fexe ba buñ ma catoo si ay ay bés ay ay bés ma dindi la ndax kat cat day mbir moo xam ne bu rayul semmal cat dafay mbir moo xam ne dafay baare nit ki. mooy seen euh, loo xamante ne tey mooy ci kaaraange ak lu mën a doon ci àdduna bi rek yoo xamante ne da ko war a may doomu aadama yi lan la. jël leen lii mooy ñetti tur yàlla la. Allahu karimu razaqu ñu liggéey ko ci 66 6 ak 6. 6 ak 6 muy 66 juróom benn fukk ak juróom benn allahu karimu razaqu soo koy liggéey néeg bi nga koy liggéeyee wala kër gi nga koy liggéeyee wala place bi nga koy liggéeyee fexeel ba bu la kenn teg bat su fekkee ne yow yaa nekk sa place dugal ci suufu comptoir bi nga liggéey ko nu mu gën a gaawee doo wax ak kenn doo tontu kenn su fekkee ne yàgg sa jabar yéen a nekk ci néeg bi fexeel sax ba yónni ko ne ko demal may ma ndox laata muy dem laata muy ñëw fekk nga mën koo liggéey 66 yàggul mm-hmm. mais képp ku koy liggéey am am daf lay yomb wërsëg tamit dina la dikkal waaye sa mbir yi tamit dafay leer naññi képp ku koy liggéey jël leen loolu allahu karimu razaaku 66 fois mm-hmm. juróom benn fukk ak juróom benn 6 ak 6 nga koy liggéey loolu Serigne Cheikh moom moo leen ko may mm-hmm. Mm. jërëjëf sëñ Cheikh waxtaan am na solo lool ci li nga xamante mooy ci mbir bu xam-xam nga am ponk yi bari yoo xamante li nga ko ci mais di wax ne adresse bi euh, ñu ngi fi nga xamante mooy si Ka Mbaaw mais na doomu Saalum la lu ëpp tamit day nekk tamit ci li nga xamante mooy ci Saalum fële ci côté li nga xamante mooy ci àll bi mais lépp rek ci taxawaay doomu aadama yi ak jafe-jafe nit ñi mooy waral loolu noonu te lan ngay tàggatoo mbokk internet ak ci bës yi waaw di santaat yàlla di julli si yonent bi beneen yoon euh, maa ngi wax ne na nit ñi gën a dellu si bëgg yàlla wala na na nit ñi gën a dellu si xam yàlla ndax nit ki tamit mënul xam wala mënul bëgg lu xamul yàlla laata nga koy bëgg dëgg-dëgg day fekk nga xam ko am sa wax na ne soo ma xamul naka nga may jaamu te ñu bari ñu ngi jaamu yàlla te xamuñ yàlla xam yàlla dëgg-dëgg nag moom mooy mbir mi nit ki su demee ba xam yàlla rek kooku amul lenn lu ko desee ci àdduna bi te léppam tamit dafay nekk loo xamante ne nii jëm yàlla ji lay jokkal ci bëccëg dama toog ba mu yàgg ma dégg ab way muy wax ne maa ngi maa ngi mar gannaaw bu ma maree maa ngi yenn ndox mais ki nga xam ne dafa mar te yenu ndox xanaa koo kañ dafa war a jël rek naan kon maa ngi mar yenu ndox gannaaw bu ma yenoo ndox it maa ngi war a uti ndox kon jile wax lu doy waar la dégg nga wax ji moo sore kooku nag dangay xam yàlla rek mën a xam mbir yi waaye tamit ñu ngi digle beneen yoon ñun ndaw ñi wala ndaw yi nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax si respecté suñuy parole waaye tamit si respecté doomi aadama yi ndax respecté doomi aadama njëkk mooy respecté sa bopp yow mi nga xam ne respecté woo benn doomi aadama yow jàppal ne yow it kenn respecté wu dignité nit ki mu ngi koy amee si boppam njëkk waaye tamit dëgg-dëgg dignité moom mooy lépp nit ki su amul dignité rek amul dara ragal yàlla beneen yoon te rafetal li nga xam ne mooy utin bi ndax amee ko foo xam ne waroo ko faa amee taxul nga bëri la ko ndax waxtu wu ne yaa ngi koy gën a soxla te doo ko amaat waaye amee ko fi nga ko war a amee loolu ak doylu la mm-hmm. allahuma la faraj ila farjaka farj anna kulla xamin wa xamin yaa man bi yadihi mafatihul faraji ak fina charran kulla man yuriddu durrana min insin wa jinnin wa baaxin wa xaasidin wadfaana bi yadika alkarimi innaka ala kulli cheyin qadirun subhaana rabbika rabbil izzati amma yasrifuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin